bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mbokk yi ñuy teewlu ci MK TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ne tey ñu ngi fii ci biir jumaa Touba am fi gan gu tedd goo xam ne mu ngi jóge ba Bayruut ñu koy wax alxaaji Nabil Baba di kenn ci responsable yi nga xam ne ñoo jiite Euh, kër ga ñu xam ne nañ fa muul di fa tasaare xam-xam ñu koy wax euh, daarul fikr li tibaa wan nashr yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi teewlu mool yu mujj yi nga xam ne murid yi mool nañ ko seen i téere rawatina yenn daaira yi te mu gën caa fees du Rawdu Rayaahiin ak euh, daaira bi nga xam ne moom moo ëmb sëti sëriñ Fàllu yi ak waa kër Sëriñ Mor Penn Lo ak yeneen di daaira ba ci sax yenn gëstu yu bees yi nga xam ne def nañ ko dangeen gis ne ñi ngi ko moole ci këru moolukaay googu te mooy darul fikri litibaa wal nash tey alxaaj nabil baaba teew fi di suñu gan ñu bëgg koo jox rek kàddu bu ko defee mu wax euh, yan tànk moo ko yëkkati mu ñëw fii ba Touba ñaareel bi mooy naka la gisee euh, jàppalante gi nga xam ne ñu ngi koy jàppale ñu ngi koy jàppalante ak gëstukati murit yi ci wàllu mool ak tusaari xam-xam idan maana dayf eh, huna fi rihaabi hada aljami alkabir jami eh, madinat tuuba ala wa huwa alxaaj nabil baaba wa huwa masulu dairat eh, masulu daari alfikr litibaa wa nashr min beyrut jaa huna ata huna tuuba li alziyaara ولتجديد العهد الذي دار بيننا وبينهم معلوم لدى الجميع ولدى كل مطلع على الإصدارات الجديدة للتراث المريدي أن هناك يعني حلة جديدة فالمريد المريدون الباحثون المريدون في هذه السنوات الأخيرة تعاملوا مع هذه الدار دار الفكر للطباعة والنشر فقدموا يعني إسهامات كبيرة و مستحسنة للكتب التي يطبعونها من أجل نشر التراث الخديمي ف هناك دوائر كثيرة تعاملت مع هذا الدار مع هذه الدار منها وأبرزها دائرة روض الرياحين ودائرة أحفاد الشيخ أحمد الشيخ محمد الفاضل ودائرة أحفاد سرين موربندلو فنريد من الشيخ الحاج نبيل بابا أن يقدم كلمة قصيرة عن أسباب زيارته لمدينة لمدينة طوبى wa an tibaatihi al ula an hadihi siyaara fal tatafaddal mashkura ayyuha cheikh rahmatullah taala wa barakatuh يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم بمدينة طوبة خاصة مع إخوة الكرام تشرفت بمعرفتهم إن كانت في الزيارة السابقة التي كانت في شهر يوليو أم حاليا وهذا شرف لنا كبير وبالمناسبة أود أن أشكر الصديق البروفيسور الدكتور أسعد السحمراني الذي أتاح لي فرصة هذا اللقاء السابق الذي كان في شهر يوليو عندما حضرت وإياه إلى جامعة الشيخ أحمد الخديم حيث كان لقاء مثمر لنا مع إخوة كرام أساتذة في الجامعة حيث عرضت على الأساتذة إمكانيات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع التي وهذه الدار التي تأسست منذ ستينيات القرن الماضي وهي تقوم بخدمات الطباعة خاصة إلى أفريقيا وهم أول من أدخلوا المطبوعات إلى هذه البلاد ولعل هذا الأمر معروف عند الكثيرين من أهالي السنغال والدول المحيطة المهم أن زيارتي الأولى عند لقائي بالاخوه شعرت بهم بكل محبه واحترام ورغبه في العمل حيث عرضت لهم امكانيات الدار وجوده الانتاج وامكانياتها ايضا بان تقدم اسعارا مقبوله في الطباعه وخدمات الشحن التي توفر العديد الكثير من التكاليف المهم باشرنا منذ عدة أشهر بالتعاون مع الإخوة في روض الرياحين وغيرها من الدور في طوبة ودكار لقد شعرت تماما بحسن المعاملة مع الإخوة جميعهم من حيث التعامل التجاري والتعاون الفكري والاخلاقي ايضا وهذا السبب الذي عزز مجيء اليوم الى طوبى لان الاحترام الذي وجدته في هذه المدينه المكرمه دفعني بكل محبه ان ازورها مجددا وان شاء الله يكون لنا زيارات قادمه ليكون لنا مزيد من التعاون مع أبناء هذه المدينة ولهم الشكر والتقدير سلفا مني ومن صاحب دار الفكر الأستاذ صفوان راغب جبري ومن الهيئة الإدارية جميعا تحياتي لكم وشكرا على هذا اللقاء القيم الذي أعتز به تفضل جزيلا لكم على نيتكم الحسنه wa ala sidqikum maa haulai thulla almubaraka allati allazina taamalu maakum amal taamalu maakum fi hadihi alqadamat wa alixwa jamian yacrifuna anna hadihi daar daaru lfikr litibaa wannashr xadamat yani xadamat jalila tabdu fi kulli aljawanib alshakliya wa almadmuniya wa fi kulli ma yu sirru an naadirin kon ci gàttal dafa mel ne kàddu gi mu doon waxee rek mooy li ko tax a jug tey li ko gën a poussé mu ñëw ziyaare si fii ci fii di euh, dëkku Touba dafay wax rek ne euh, ci weeru juin njëkkoon na fee ñëw ànd fi ak euh, docteur Assax Muraani nga xam ne moo ko gënoon a poussé ci mu gën a jëflante ak mbokk yi bi ñëwee dajewoon nag mbokk yenn ci boroom xam-xam yi ñu defoon ay proposition ci naka la liggéeye ci seen biir ba mën a jàppalante ci tusaare xam-xam nee na diirub loolu nag gis na ne jëflante bi nga xam ne jëflante na ko mbokk yi jëflante bu rafet la euh, moo xam muy lu aju ci wàllu xalaat nit ñi doon échangeante ci wàllu xam-xam moo xam euh, ci wàllu commerce niñ daan jëflante moo xam it ci wàllu jukko nee na yooyu yëpp ñett yooyu yëpp boo ko boolee bokk na ci li gën a euh, li ko gën a puus ci mu euh, ñëw def si ziar bi waaye nee na euh, at yu mujj yi jamono yu mujj yi jëflante nañoo murit gi jëflante bu rafet ci wàllu mool ak tusaare xam-xam moo xam muy daayira Rawdu Rayaahiin moo xam muy yeneen daayira yi nga xam ne fes nañ ci dëkk bi te moom seeni téere mool yu mujj nee na nag kër gi nga xam ne mooy daarul fikr li tibaa wa nashr mooy kër gi nga xam ne moo fi njëkk a moolal Afrique indil ko ko ci am réewam loolu di li am solo di lu am solo nee na ndax day kër goo xam ne danañ jëflante ci ay prix yoo xam ne yu xel nangu la ba noppi it day kër goo xam ne dafay defal euh, ñi muy jëflanteel ay services yu wute mooy dana la moolal dana la ko mën a indil ba ci sam réew te it boo ko gisee da nga ci bëgg nee jàpp na ne yooyu yëpp nag ay ay ay ay ay sabab la ay mbir la yoo xam ne bu ñu ko dajalee dana gën a mën a tax nag mu ñëw ziyaare fii ci dëkku Touba nee na ziyaare bi amu ci lu may mbégte ak kontante ak itam di am yaakaar ne dana am yeneen ziyaar yoo xam ne dana ci su topp incha allah di bég bu baax ci mbokk yi di leen gërëm di leen sant di joxewaat kàddu gi kon loolu ci gàttal mooy li nga xam ne wax na ko moom Alxaaji Nabil بابا ونشكر الإخوة الكرام الذين حضروا هذه الجلسة وعلى رأسهم الدكتور سام بوسو عضو بارز في دائرة روض الرياحين والشيخ عبد الأحد بوسو الأمين العام لدائرة مقدمة الخدمة الدائرة التي التي ترعى هذا المسجد المبارك والشيخ عبد الله جوب هو من الهيئة الرئاسية للدائرة والشيخ عبد الأحد بوسو وهو رئيس اللجنة الثقافية للدائرة ثم الشيخ عبد الأحد بوسو أيضا وهو نائب الأمين العام للدائرة نعم عندنا عبد الأحد عبد الأحد عبد الأحد نعم جميل محمد بن صار نعم أه... وشيخ عبد القادر بوصو وهو المسؤول للجنة الإعلام الشيخ عبد القادر والمسؤول للجنة الإعلام والمسؤول عن هذا المكتب الفاخر الجميل المشحون بما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين نعم العبد الضعيف شكرا بارك الله فيكم والى اللقاء القريب ان شاء الله. ختاما اشكر حسن الضيافه التي تفضل بها الاخوه الكرام هذا لا ننساه الله يبارك فيكم جميعا وامل ان نلتقي بكم وندعو من يحب الحضور ايضا الى لبنان ليقوم بضيافتنا فاهلا وسهلا بكم جميعا. الله فيكم.